bi nga xamee ni ñu ngi seetaan di déglu seen euh, télévision sur YouTube Tactic Info te seen émission du dëgg du yoon daf leen indi loon benn mbir bi nga xamee ne mi ngi xewee si ginnaaw raay benn maire bi nga xamee ne mu ngi tudd faatu Ndiaye am na pratiquement juróom-ñetti fukki at moom moo yóbboon tribunal benn satam bu ñu naan Cheikh Faye ndax euh, Cheikh Faye boobu papam mi ngi tudd Serigne Faye doomu maire bi la euh, dafa demoon nag jël kayitu këru maire bi changé ko def si turam ndax euh, mbir bi nu mu demee Cheikh Faye papaam Serigne Faye dafa ñëwoon gis yaayam muy Fatou Ndiaye ne ko daal kayitu kër géeg yooyu jinax yi ak mbóot yi ñu ngi koy commencé di lekk léegi nañ dem ci chef de quartier bi pour ñu changer ko yaay ji moom it d'accord bi mu gisee kayit yi nu mu yàqoo bu ñu demee ci chef de quartier bi ndeke ne moom jël na turu yaay ji changer ko ak turam léegi bi mu ko changer ak turam nag wax yaay jox yaay ji kayit yi mu signé ci daf ko après bindaale si ndeke ne dafaale na si benn reconnaissance de donc bi nga xamee ne yaay ji moom moo ko may kër gi loolu yëpp mu jël ko après jox ko mee bi mu signé bi ba pare mu jël kayit ya denc mais entre temps si diggante bi Serigne Faye boobu dafa gaañu dafa mujjee dem wuy ji boromam léegi nag bi ñu demee ba avant bi mu gaañoo ba ñu dem suuli ko ba ñëw avant ñetteelu fan bi lañ ñu waa famille bi wax ne nañu toog ñu waxtaan si biir mbo si biir famille avant ñuy def euh, dëj bi ñetteelu fan bi léegi nag euh, si biir waxtaan boobu la rakku sëriñ fay bi ñu naan Alioune Badara Faye wax ni kan moom amoon na dénkaane bi nga xamee ni moom la ko sëriñ fay waxoon waaw famille bi ne ko waaw la mu ne ko moom kat daf ko waxoon ne ko euh, yaayam dafa ko mayoon kër gi parce que Alioune Badara Faye boobu moom mu ngi dëkk Mbour moom rakk la si sëriñ fay mais mair bi dafa weddi ba tëdd si suuf ne moom amul doomam jurul jurul rek Serigne fay parce que jur na avant Serigne fay ak Aline Badara Faye bi nga xam ne ñoom ñoo bokk papa amoon na beneen doom bi ñu naan Thierno Ciss moom oustaz la moom dëkkul si kër gi moom it dafa am këram dafa jàngale alxuraan mu ne ko Serigne Faye mosoon na ko wax ne ko pour mu may ko kër gi mais moom def na ko jur ko moom rek dafa am geneen njaboot donc du ko mën a may kër gi léegi nag bi ñu waxtaanee maire bi di bañ ba suuf ne moom mosul may sëriñ fay kër gi Cheikh Fay nag moom bu mu laajee bu mair bi laajee Fatou Ndiaye bi mu laajee kayit yi Cheikh Fay doom ji doomu sëriñ Fay sëriñ Cheikh Fay def ne ko ñett moom du ko jox kayit yi maire bi nag bi mu demee aussi chef de quartier bi wax ko chef de quartier bi jëm si wut ay médiation ak yooyu pour que ñu jox ko kayitu këram ba Cheikh Faye bañ ak Alioune Badara Faye léegi nag dafa obligé dem tribunal bi mu demee tribunal nag indaale kayitu euh, ba muy fayee ndox ak courant indaale benn doomam bi nga xamee ne moom moo ko yaroon doomu magam la bi nga xamee ne bu mu feree rek lañ ko joxoon mu yar ko kooku moom moo témoigné à la barre ni moom bi muy ñëw si maire bi xale bu ndaw la te léegi pratiquement am na 60 ans mais muy ñëw si maire bi xale bu ndaw la maire bi yar ko te moom kër gi maire bi rek la ko xamee woon maam Thierno aussi sis wax ne moom kër gi maire bi la ko xamee parce que kër gi maire bi moo ko moom mais Alioune Badara fay moom it euh, bi nga xamee ne témoin la euh, mooy rakku Serigne Faye dafa ne carrément ne ah Serigne daal moom daf ne maire bi moomu moom kër gi waaye Serigne moom moo ko daf ko may daf ko may Serigne moom moo tax euh, Cheikh Faye indi kayit yi jox ko ko mu téye ko juge bi nag nee na ko kër gi sa yaay moo ko moom te kayit yi may naa leen ba fi ak cinq jours juróomi fan ngeen indi ma kayit yëpp sama bureau ñu jox ko maire bi parce que maire bi moom moom moom këram Serigne Faye amu fi kër tey amu fi kër ëllëg léegi nag nee na xale bi doomu Serigne Faye bi Cheikh fay ne ko su nekkee da ngay persister dans ta position ba bu ñu la indiwaatee fii kaso moom mooy nekk si kër mbir bi daal noonu la demee euh, ba beneen yoon